voilà c'est parti votre émission Buzz commencé na ci Rewmi FM Dakar 97.5 mais aussi ci Rewmi TV Buzz Show c'est du lundi au jeudi 10h jàpp 11 une émission au cœur des faits divers et des faits de société lépp luy fait divers ak fait de société yi nga xamante ni moom mooy def le buzz ngeen koy waxtaanee si biir kër yi si média yi si réseaux sociaux yi si grand place yi dañ koy indi fii daal di koy euh, faram sa su nekk nag dama si ànd ak sama ñaari góor di diisoo daasoo ak euh, Thialé diis daas maa ngi lay nuyu di la wax naka euh, suba si naka gàmmu bi. waaw mais sant doole sant gën di sant rek Moreau comme mu ñu koy waxee yow gàmmu ci yow <laughs> gis nga Mawludu Nabi hmm. xam nga moro ñëw ak euh, xam nga hmm. yees peq daal hmm. euh, di la jaajëfal bu baax di baaluwaat ak ñëpp te di baal ak ñëpp euh, di wax rek gars yi ahlan wa sahlan ci Buzz Show l'émission qui fait le buzz mi ngi noonu nekkoon di soo ma nuyu sama beneen góor di cale di ko wax nag suba si naka gàmmu gi waaw moro maa ngi lay bëggee di la ziar bu baax ziar dis le grand DJ di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel jullit yëpp nga xam ne ni fépp fu fu ñu gàmmoo rek ñaan yi ñu fa ñaan yëpp yàlla na yàlla ko Sénégal muurloo. waaw yàlla na ko Sénégal muurloo. Mm. Mm. di di di di di ñaanal aussi tamit ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci kër gi. ñaanal nañ leen foofu bu baax a baax a baax a baax. yàlla yokk lépp ñi amul am ñaareel. ñu bëgg am ñaareel. bëgg ñetteel am ñetteel ñaareel yàlla nañu am ñaareel. ñu bëggul am ñaareel yàlla buñ ko am. ñu bëgg ñetteel yàlla nañ ko am ñu bëgg ñeenteel yàlla nañu ko am. waaw euh, xam nga ragal yàlla nañ gën a ragal seen jabar yi <laughs> yàlla na déggoo am ci kër yi bu dee ñeent la yàlla nañ déggoo bu dee benn la. Hmm. yàlla na yàlla nañ déggoo. Ah. man ne dañ maa wax da am ñaareel Tiwaawan. man ñaareel Tiwaawan. Hmm. man man man kay. am nga fu baax nag waaw man ma fa mayoon ñaareel sax ko jël. moo tax man kenn du ma santaas. moo tax ma lay woo ah? bi ma lay woo nga ne bu ma déranger waat. biir kër sëriñ biir kër sëriñ bi sax su ma mayoon ñaareel du ko jël. ndax la di di kaddu. <laughs> ah kaddu. kaddu waaw waaw. dégg nga ban kaddu sëriñ bi bu ma woon bu ma ñëw. waaw ne ma ñaareel bi dafa bëgg nga jël ko. Mhm. ma ne ko sëriñ bi jéggal ma. waaw mais lu tax ban kaddu nga joxe. wax wax dëgg yàlla sëriñ bi. jéggal ma waaye waaye loolu man manuma ko te dina ci ànd ak man. Ah. non ah, wax waxeet dafa xew fii da ciy ànd ak man. man wax waxeet xew na. Hmm? wax waxeet. doy na ngi noonu encore une fois nuyu nañ auditeurs yi auditrices yi nuyuwaat téléspectateurs yi internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre via nos plateformes digitales nuyu aussi euh, les lecteurs ñi nga xam ne taamu nañ le quotidien du groupe Réwmi Network Réwmi quotidien euh, l'équilibre notre credo toujours au cœur de l'actualité politique et sociale tey ji ci xëtam bu njëkk Réwmi quotidien week gàmmu gàmmu euh, les routes particulièrement mortelles di ñëwaat ak ñun ci accident yi nga xam ne am na si période euh, gàmmu bi avant période gàmmu bi sa xam ngeen ne accident yi bari na rawatina aussi gàmmu bi dem beeg dikk bi aussi y a d' accident yoo xam ne euh, am na ci réew mi quotidien daal di ci ñëwaat mais aussi ca la nga xam ne am na ca Tivaouane si diggante xalif général des Mourides ak le président de la République du Sénégal ñu def fa nataal nataalu xalif général des Mourides Serigne mbay si ak euh, le son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar fay mi ngi noonu aussi réew mi quotidien ñëwaat euh, ci sortie bi nga xam ni Aminata Touré def na ko contre euh, l'opposition mi ngi foofule ci réew mi quotidien toujours au cœur de l'actualité politique et sociale mais aussi toujours au cœur de l'actualité sportive si wàllum tàggat yaram également réew mi sport écho des euh, Lions l'équipe type des Sénégalais de la semaine titre réew mi sport mi ngi noonu cent francs lay jar saa su ngeen xëyee jëndu leen ko pour être au cœur de l'actualité politique sociale économique culturelle et sportive euh, people ki est-ce que bu ngeen dem fekk ko fa ma bàyyi sama ñaari góor yi am ñu ñu ziar ci waa génération euh, bës di càlle ak diiso avant ñuy dugg si waxtaan bi diis. waaw si siyaar ak màggal jëm ci suñu PDG président Mbagnick di ko ñaanal war a fax naaw makaan xaliyan DG Moustapha ak personnel bi yëpp waa réew mi ci biir réew mi ñoom Lomba ñoom Ngor euh, armée française ñu ngi koy kontaanee bu baax ak ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel booru Paris la France ba Thaïlande Elisa Awa ñu ngi lay kontaanee bu baax jot bataaxal yi ak euh, fu waaye mën a tool te di sàlloo dégg-dégg rek ñu ngi lay wax lan wa sahlan te di la euh, sawdar lu bare bare bare. voilà mi ngi noonu Thialé. non tey damay delluwaat sama dëkk rek xam nga sama Tiwaawan sama dëkk la. Mm-hmm. sama papa foofu la dëkk. Mm-hmm. man bu Sénégal doon doon doon màbb di ñibbi man fa laay ñibbi. Mm-hmm. di jaajëfal bu baax xalif général de Tidianes. Euh, franchement euh, ñëpp gars yi ñëpp dañu bëgg ci moom Tiwaawan. tey taalibe yi dem foofu noonu yëpp da sentir benn benn mbégte boo xam ne nii am nañ ko tey boo demee foofu noonu si jumaa ji ak travaux yi fa nekk nga gis ko àll yi nii da ngay gis sa xol dafay sedd quoi. ci ci reeñam la amee. franchement euh, di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xam nga euh, wér ak gudd fan. parce que parce que parce que sag la ci. non non nit ku noppi la. waaw nit ku moom nit ku noppi la. du tontu wax. Mhm. du wax ci logique la nekk boo xam ne ni tey mu ngi ci. en plus que aussi tamit euh, gis nañ ni euh, nit ku nit nit la koo xam ne nii nit ku oyof la. Mhm. franchement di ko di ko di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax gudd fan ak ak ak ak wér. yàlla na fi yàgg te na fi yàgg te di ñaanal aussi tamit El Hadj Malick moom moom dañ koy bàyyeek yàlla parce que li mu tabax ci suñu xol yi. voilà moom dafa tabax ci suñu xol yi ay palais palais muhabbat rasulullah loolu nag boo ko amee. non sa euh, dootu sax bët dootul tege ci dara beneen bi si des moom mooy ndekete ñun dañuy taxaw fii di wax mais duñu xam kan moo ñuy déglu. Mhm. man ndekete jaxase yi ma nekk fii di jaxase aaya yeeg di yàq affaire yi di kii yëpp ndekete am na ñoo xam ne dañ ciy bég tellement que. Mm-hmm. non teraanga bu mel noonu mosuma koo gis si àdduna. Mm-hmm. teewaan jënduma fa i mm-hmm. o oh, jënduma ko. xaalis franchement yal na leen yàlla defal. Mm. defal defal defal teraanga. ayca mi ngi noonu muy le grand Thialé su ko defee foofu la ñuy jógee daal di jëli suñu premier élément yi nga xam ni moom la ñu fas yéene euh, si buzz show ngeen xam ne ba léegi euh, après sax dina ñëw si gàmmu gi parce que li xew si gàmmu gi bari na te xam ngeen ni Tiwaawoon xumboon na trop euh, dinañ fa ñëwaat dëkku ki nga xam ne moom mooy Thialé nekk un vrai talibé su ko defee dañuy ñëw wax si phénomène immigration irrégulière bi mi ngi nekk au cœur de l' actualité dañ siy jëli quelques éléments jafe-jafe yi nga xam ne euh, yi dañ koy jànkonteel pour mën a am visa fii ci ambassade bu France mais rawatina ren nag euh, li ci doy waar moom mooy euh, ñi nga xamante ni dañuy jàngi chaque année en France pratiquement dañu déposer ay demande visa mais ñi ñu si rejeté dañoo bari bari goo xamante ni doy na waar si ñi nga xam ne vraiment toutes les conditions étaient réunies pour ñu dem yeggali aussi euh, ni ñuy dundee bitim réew euh, ak aussi appel bi nga xam ne euh, Gris Bordeaux mi ngi koy lancé par rapport a ce phénomène par rapport à cette situation dellu si waat si waxtaan wi. ambassade Sénégal refus yi ñu defal étudiants yi damay xool refus yi sama xol bi di jeex tàkk tàkk tàkk tàkk xaw ma ban motivation la xaw ma lan moo ko waral sama gars yi étudiants yu bëree bëri dañoo déposé woon seen visa yi am na ñoo xam ne depuis le mois de juillet ñu ngi déposé seen visa yi waa ambassade téye ko téye ko téye ko am na ñoo xam ne début mois d'août gars yi téye ko téye ko téye ko ba last time bañ ni léegi dépôt de visa yi dafay dafay clôturer dans deux jours ñoom ñëpp ñu woowandoo leen jox leen ay motif 4 refusé leen ba pare joxaat leen seen passeport yi ba pare deux jours yi nga xam ne moom moo desoon pour booy redéposer waat ay recours yooyu noonu instant bi affaire bi clôturée la c'est du grand n'importe quoi je sais pas ce qui se passe au niveau de l'ambassade mais ren les refus personne n'est d'accord avec vous xaw ma nag ay problème politique la xaw ma ndax ay tension la je sais pas ce qui se passe entre ces deux pays là mais en tout cas ils ont fait payer les pots cassés aux jeunes étudiants yi nga xam ne ils ont rien demandé te des étudiants jàng nañ am nañ seen i préinscription ils ont justifié que am nañ les moyen qu'il faut pour venir ici et faire leurs études je sais pas ce qui se passe les gars bu fekkee yéen comprendre yéen ngeen waaw tey la samedi 14 euh, euh, septembre 2024 maa ngi fii nii France ci benn dëkk dëkk moom jarul sax ma koy wax waaw damay filmé waale di nëbbaale tuuti nag pour wax rek ci wàllu immigration daal leen war ne fi yi moom yombul ndax gis ngeen ñi ngeen gis ñëpp ñu dëkk fii ci suufu pont bi am na yëf yi lu méttee méttee méttee waaw fii xëy na chance yi amul quoi mun nga ñëw say affaire baax mais comme mun nga ñëw euh, vraiment jël risque jël gaal gi ñëw ba fii lii rek nga fi nekk te yéen ñi du fi jeex daal du fi jeex kii yu bare bare bare la fi boo xoolee da ngay gis euh, bëri na fi quoi bëgg ma sax di vidéo image yi di leer trop trop trop parce que bëgg ma ci wane kanamu kenn ku xëy na di xam na xeet yëpp a ngi fi nag xeet yëpp a ngi fi am na sax ay fii lañ juddoo ci dëkk bi mënoo ko ne naan ay waroo def nekk bul defe nii waaye xam naa ni kenn ku yaa xam sa tolluwaay daal ak la ngay dund tax mu jaral la nga jël yenn risques yi waaye daal xam naa ni fii moom ah man de personnellement gisatuma lu ko daal lu fi jël risques yooyu moom gisuma ko toog suñu réew daal jéem koo liggéey développé ko parce que kenn duñu ko développé man loolu laa ci gis daal waaw c'est vrai que nag nekk fii yow di ko wax yomb na parce que moom amatul kenn ku ci choix bëgg a toog Europe xëy na ñàkk pexe la rek choix imposé waaye képp ku boo yeggee rek réussir nga de Europe am na ñoo xam ne ñi toog fi ñu ñu envoyé xaalis y a des yoo xam ne ils sont partis en Europe sama diggante yàlla gars yi toog fi ñoo ngi li jënti ba parce que fii tey boo fi tàmmee noflaay j'ai vu des gens yoo xam ne ils pour aller en Europe xam ne fi may wax ak la waata ci alxuraan kan mën ñoo yóbbu mën ñoo envoyé seen kër yu soo lu suukar baraada parce que feeñaa bi ñu ngi ko tàmbalee fii. Mm. un jeune vingt ans vingt huit ans boo xam mosul yeewu cinq heures du matin quand tu pars en Europe nga ne yow mënoo yeewu cinq heures du matin mais da war a ñibbisi <laughs> da nga war a ñibbisi Europe dem tu dois te réveiller à cinq heures du matin pour aller nekk ci benn nga ne fii nga jóge dem Europe wala Amérique dem pour aventurier pour nga ne yow nga war a mm. yoo xam ne fii. tayal bi nekk ci ñoom tayal bi teg baraada ba certaines heures yi naan attaaya guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ne la Europe sa feet ba nga juddoo ba léegi mosoo yow 5 heures du matin nga ne yow da dem Europe pour te mun loo jóg 5 heures du matin soo fa demee sama diggante yàlla day metti man gis naa boo yoo xam ne fii dañ leen daggal fii ay 4 millions 5 millions pour ñu dem tukki parce que Xalifa Mali dañ fa toog di yuuxu di jooy ñu mujj parce que y des jeunes. yoo xam ne tey ñàkk gis ñàkk gis certes am na jeunes yoo xam ne ñàkk gis lu ñu liggéey moo tax liggéey ñu mais am na ñoo xam ne c'est des feignants et en plus agression bi dëkk bi mel ni agression léegi maanaam international la tu vois des jeunes mais dëkk war na am métti métti métti métti ba solution bi mooy jël alalu jàmbur jam ko nangu ko jëm mais c'est du n'importe quoi jikko yi moo yàqu rek jikko yi moo yàqu parce que loo xam ne ci film yi ñu ko gis ci yeneen dëkk yi léegi ay gang bërki démb Tivaouane Peulh bii ay bande association malfaiteur ñëw daaj yi boutique jàmbur ñuy teg ñëw ay te ay xale lañ mais loolu sàcc gi ak façon boobu voilà mu nekk situation bu doy waar déjà Thialé ñi nga xam ni dañu doon jàngi chaque année France euh, am seen bac wala am seen pré-inscription seen dossier yëpp mat mais ñu gis ni ren pratiquement euh, yëpp la ñu rejeté wala yi ñu si accepté lu tuuti la mu nekk situation bu doy waar aussi nga gis sensibilisation bi nga xam ne koo xam mu ngi dund France mu lay wan euh, camp campement yi nga xam ne fa la ñuy dugal immigré yeeg si gis nga ko si suufu pont yi dafa leen ay tente noonu teg leen fa en attendant ñuy xool naka la ñuy lijjantee seen situation mu nekk réalité yoo xam ne souvent ñi dem naan la euh, dañ naan la yegg nañ rek mais duñ la wax si yan condition la ñuy dundee muy foofu France muy suite. ak aussi Gris Bordeaux di lancer appel bu am solo. non am na solo trop. mais ñii étudiants yi fii lañ nekk Sénégal bu gën fi jóge dem. Mhm. waaw loolu loolu doy na dugal ay dossier pratiquement ñu ñu rejeté yëpp ambassade bi. waaw gis nga ñoom dem nañ sax banaan ci diggante ñaari réew yi ba xam dafa am lu ci am. parce que mhm. gis nañ ne. lu ni mel est-ce que par exemple tey mës na leen mës na leen arrivé. Mm-hmm. donc yu mel nii moom mooy tax yeneen raccourci di ama ah. mm-hmm. par exemple tey nga gis ab ab à ndaw ñi di jël yeneen yoon yi. Mm-hmm. mooy li ñuy wax fii tout le temps que ne affaire immigration clandestine bi li nga xam ne ni tey moom mooy responsabilité yi dafa partagé. parce que aussi tam nit ñi dañoo am ak seen àq ak yelleef maanaam déplacé wu daf ci bokk. déplacé wu nag dañ ko organiser réew mu nekk ne man booy ñëw ci man nii ngay ñëwee ci man. nit ñi nag bu ñu bëggee ñëw jaar foofu noonu après nga xañ leen ko bu ñu jaaree ci géej gi ñu jàpp leen bu ñu egsee am problème donc loolu je crois que euh, ñëpp ci am part de responsabilité je crois que dem dem bëgg dikk bi daal war nañu xoolaatee euh, nu ñu ko nu ñu nu ñu ko yombalee tey ñoom boo demee foofu en Europe fexe nañ ba seen espace Schengen ñu organiser ko ba nit mu nga déplacé wu librement ci dëkk bu la neex. après du am problème mais ñun fii Afrique loolu problème la problème la fi bu ñu bëggee dem foofu noonu. Euh, beneen bi si des moom mooy. boo demee ba yegg foofu noonu gars yu bëri dañuy yaakaar ne Europe da ngay dem di for xaalis ci tool yi. maanaam mel ni daal. waaw da ngay dem rek Eldorado la boo xam ne da ngay alors que am na ñu fa nekk ñoo xam ne ni instant bi bi ñu ne fa cëp ñu ngi ci prison yi. am na ñoo xam ne nii tey fa la ñu nekkoon ñu ngi ci biir prison yi foofu noonu ay nangami at lañ leen fa war a teg am na ñoo xam ne nii tey ci mbedd yi la ñuy fanaan mm. am na ñoo xam ne nii tey hébergé yi ñu leen hébergé foofu pour ñu mun génn sax problème la parce que amuñu ay këyit saa bu ñu génnee mun nañ leen jàpp mun nañ leen jàpp nangam sangam am ñoo xam ne ci mbedd yi la ñuy fanaan mm. gis nga temps yi passé rek gars yi ñu ngi doon wax ay convention yu signé entre Sénégal ak yenn pays yi ngir am ñu ñu fa jëlee di mm. indi gis nga aussi tamit li am foofu noonu ci wàllum par exemple tey xatal xatalaate yi fa nekk léegi ñoom ci seen bopp ña fa nekk danoo xat hmm. maanaam seen seen wax yëpp mooy na fi étranger yu jógee hmm. nangam sàngam politique yooyu léegi ñoom ñoo fa gën am doole donc ñun nag war nañu pousser à ce que ñu li Gris Bordeaux wax aussi tamit am na solo gis nga fii hmm. ku yaaxus fii boo demee foo mënti dem ci àdduna bi doo raw kenn ndaw moom bu jógtee ak yaafus bu fu mu mënti dem non fu mu mënti dem du am dara dëgg la nag wax dëgg yàlla fii war nañu góor góor de tele sorte que nit kuy liggéey tedd mais fii parfois ñi fiy liggéey di tedd aussi wax dëgg yàlla dañ leen di compter bariwul hmm. beneen bi si des moom mooy affaire immigration clandestine moom je crois que dañ ko war dañ ko war nañ ko waxtaanee mooy li jëb ci kër diine yëpp ci gàmmu gi nii hmm, hmm. moo jib Medina Baye moo jib Tivaouane moo que ne war nañ ci organiser ay assises yoo xam ne ni tey ñëpp lañ ciy boole y compris réew yi nga xam ne ni aussi suñu njaboot yi fa la jëm seet ñu nit naka la ñuy tegee ay yëf yoo xam ne ni tey de telle sorte su suñu ndaw yi dinañ am dinañ am yeneen yoon yoo xam ne ni tey dinañu mën a tukki ñu mënul tukki aussi tam ñu ñu mun fi resté mën jàpp ci dara mm. mais feeg loolu amul nag wax dëgg yàlla yëf yi moom dafay continuer di am coow li di am nit ñi di dee mm-hmm. c'est benn benn solution du am voilà euh, diis naka nga gisee situation bi déjà li gri wax liñ la woon parfois émigré yi ni ñuy dundee foofu en France euh, naka nga gisee mbir mi ambassade France aussi fii au Sénégal euh, jafeel mbir yi pour ñu bëgg a jàngi fële ca ca France. di refuser les demandes. li jëm ci kaw ambassade de France yàgg nañ ko waxtaanee. Hmm. moom moo yombalal ñu. comme ñoom liñ leen yombalee seen dikk fii. ñoom dañoo bëggoon ñu yombalal ñu te loolu waxoon nañ ko autorité étatique yi ngir ñu mun cee defal ay session ndax bunt la boo xam ne dafay xeex immigration euh, irrégulière bi ñuy wax ñi nekk Europe tamit di sensibiliser jeunes yi parce mm. nit ñi mm. doon maanaam informer à temps te yoon la kon comme ni Gris Bordeaux def yeneen artistes yëpp roy ci moom tamit pour xamal jeunes yi ñoom ñi ngay tukki di dem di ñëw da nga gis artiste boo xam ne salle bi muy euh, produire sax dafa gis lu mat ay trente personnes wala mm. quarante personnes mm. muy la dem naa Europe dellu si waat mm. ñëw def fukk boobu ci beneen moroom artiste am boo xam rêve mooy defi moom te xamul kooku li mu daj ba taxawal loolu ñoom ñoo war a concerté wu jël seen i euh, maanaam way sensibiliser waat jeunes yi xamal leen kat ni leen foofu noonu ne du li ñuy wax mm-hmm. te la ñuy wax jëpp ki waa ji wane na ko léegi yéeg ci velom di filmer nga gis sénégalais ñu ngi ci suufu pont yi mm. ñu ngi ci waaw dépotoir yi fu nekk ñu ngi fay fanaan pour mën a am lu ñu suturlu giri boo dox na ko da gis koo xam ne tàmmuta yeewu 5 heures du matin gi ni mel mm-hmm. euh, train de vie boobu ñun ñoo ko accepté ñun sénégalais ne leen liggéey bi lii la heure bi ba heure bii la mais boo demee beneen dëkk tamit benn réalité moo fa am mm. fépp foo jógee sa jikko dem ba foofu roy seen jikko time is morning la ñuy wax. Mm. ñoom liggéey la ñu xam guddee tëdd. nga dem seen frontière dañ lay wax waaw kay ne la mm. no trabajar no ñoom loolu la ñuy wax ku ci nekk ak slogan am ku ci nekk ak maanaam la muy wax te lépp lépp ñi nga yaakaar la ñuy yaakaar in God we trust. Mm. ñoom loolu la ñuy wax yow tamit da nga naan yàlla la ñuy yaakaar kon yàlla boobu ñu yaakaar ba samp lu def yow boo demee ba foofu boo mun am yenn jikko yi te ngaa toog suñu Sénégal bi te am na loo bu ñu koy amee fii te ñàkk ko te defar ko rek ala kulli aal mooy la ñuy wax saa su nekk rek. ne mm. état di dooleel ñi nga xam ne ñoo xam mbébatu ndaw ñi. ñi nga xam ne ñoo xam par exemple ndaw yi seen jàmbar ak fi ñu ko mën a saafara mu jëm ci secteur privé bi mu jëm ci ñi nga xam ne entreprise privée yi ñi nga xam itam micro entreprise yi nii ak wan xale yan yoon la jaar ndax manque d'information tamit dafa am au niveau de la jeunesse mm. papier yi nga xam moom nga war a lijjanti nan nga koy lijjantee bu njëkk dañuy wax ni lépp changé na mm. papier yi nga doon lijjanti daan ci def xaalis su bëree bëri kat léegi kat demal boo demee di nga ko amee ci lii di nga mën taxawal sa yëfi la a mi ngi noonu daal en tout cas euh, moo waral ba léegi xale yi ñu ngi woy di jël gaali di dugg si euh, bëgg a jaari si géej gi pour dem Europe euh, ngeen gis ni ñu baree bari ñu ngi si faatu donc foofu la ñuy jógee dem ca Tiwaawan xamoon ngeen ni nag si gàmmu gi premier ministre Ousmane Sonko moom teewoon na ci bi nga xam ni ñu ngi jël clé grande mosquée bu Tiwaawan di ko jébbale parce que travaux yi presque pare na foofule mu teewoon fa teewaay bu am solo. bi mu génnee amal na foofu si discours bu am solo ñu déglu ko PM Ousmane Sonko dellu siwaat si waxtaan wi. président Bassirou Diomaye dafa jubal jubbanti ñu yónnee ñu ab vidéo boo xam ne xalif euh, général des Tidiane def naa ay at ci gannaaw dafa waxoon lu mel noonu waxee ko sama dëkk fële ci xombal kon mu dem ba daje te ñoom ñaari yëguwuñu waaye li muy wane rek mooy nu ñuy def te jiital ci jub ak jubal mën nañ ci am résultat ndax bu doon ñi ñu dénk liggéey bi dañoo damm mbir yi def ko seen poos kon du ñu gis résultat bi kon ñun ñuy yàlla dénk état ñu nit te loolu mës doon problème ci senegal ñu fàttaliku ni dërëmu Sénégalais la ñu dajale comme fii niñ fi dajalee dërëmu jullit ñi. fifteen bu ñuy def dañoo war a fexe ba mu dem ci faratay Sénégal yi bu ko defee ñu gis résultat bi ndax xam naa ni lii buñ la nee nangam lañ ci def ci milliard li ma leer ba leer mooy de suñ nee denk nañ ko ay nitu état boo moytul ñu ñu multiplier ko par deux te résultat bu du am kon jub ak jubal mooy joxe résultat gëm sa bopp wóolu sa bopp xam ni fi ñeneen jaar ba egg fi ñu yegg boo fa jaaree raw leen ndax am nga lu leen manqué ñoom muy gëm-gëm kon yaay yooyu buñ ko dajalee rek yàlla mun nañu yombalal lépp ci réew mi suñu communauté religieuse yi nag wane nañu exemple def nañ ko fi démb ci masaalikul naan def nañ ko tey fii def nañ ko feneen ak feneen ci yoo xam ne toujours ci seen farlu bopp seen jàmbarte seen organisation ak seen jubal ci ni ñuy yore mooy joxe résultat boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bopp kon ñun ñiy nekk ci wàllu état dañuy dañuy ñëw jàng à l'école des communautés religieuses moom nag dafa boole ñaari xam naa bu delloo summi mbubu imaam bi donte kenn du ko summi sax waaye bu delloo fee ci IGE ba dina àndaale lii mu doon source d'inspiration boo xam ne war na jàppale ñi nga xam ne moom ñoom la yàlla dénk tey war a jëm ci defaraat réew mi jubbantiwaat ko euh, loolu mooy njàng jàngat yi nga xam ne ñu koy jàng ñu ngi koy ñu ngi koy am fii voilà mu ne kàddu yi nga xam ni PM Ousmane Sonko yëkkati woon na ko fële ca Tiwaawoon après sa visite euh, diisoo naka nga gisee euh, kàddu yi nga xam ni euh, PM yëkkati na ko. waaw PM moom xam nga alaa kulli aal moom bës la moom rek mm. bës la mm. moom mu ñëw teew ci gàmmu géeg loolu te ni mu ko waxee ala yaa waaw amul luñ ci mën a yokk en gros sama do waxtaan bu jubóo la jub jubal jubanti jub jubal jubanti gi rek comme ni mu ko waxee saa su nekk rek ñun moom suñu kàddu du jóge foofu moom mm. mooy nañ xool jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ci la ñu nekk. Mm. ñu def ko priorité. priorité saa su nekk rek loolu la ñuy wax lu ñu mën a waxtaan tamit ci biir waxtaan moom war na mën a xam ni dëkk bi bu demee ci gàmmu geeg yi ni mel xam ne am na coppite yu bari yu xam ne am na te de maanaam danaan am te léegi amatul. am na yu bëri yoo xam xamante dañ ko daan yokk te amatul xam nga yu la kon nag yoon la moom ca boppam dëggal jubal jubalante boobu noonu ñun ñu ciy gis suñu bopp saa su nekk mooy askan bi di ci yëg seen bopp ci wàllu koom-koom mm. ci wàllu maanaam seen premier denrée de premier si ak ci leneen loo xam ne maanaam ci la ñuy yëngu ci loolu la ñuy gën a mën a maanaam accentué mm. te maanaam ñu ko ciy xaar nag bu baax a baax danaaw ne dem na nag taataan na ñaanu xalif bi mm. taataan na lépp taw feex lépp ñëw na ah nañu tàllal loxo yi rek. mu de xam nga xam nga gars yi conseiller doo boo demee. doo nañu fi wax gars yi gëmuñ tarixa yi dañuy dinañ xeex. Euh, kilifa diinay be moom te man dama yàgg wax ni maanaam dëkk boo gis dafa am réalité. Mhm. maanaam Sénégal dafa am identité mhm. te dama gëm ni ku mënta jiite réew mi. di nga dem laamiso jëflante tàllal say loxo ñu ñaanal la danga dem Tivaouane ñu ñaanal la da nga dem Kaolack da nga dem Touba ainsi de suite donc ma gis ni kon si si si logique boobu euh, la Ousmane Sonko ak Diomaye def nekk parce que gis ngeen Ousmane Sonko taxawaay bi nga xam ne am na ko ci gàmmu gi Thialé euh, dem am fa taxawaay bu am solo on a vu aussi le président Diomaye a fait pareil dem na sax euh, ba seeti le xalif de Medina Baye Serigne Maye Niass parce que boobu ba léegi ñu ngi wax ni euh, demagu fa il a saisi l'occasion dem fa war na ne ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne dañuy war maal mag ñi. Euh, ñu baax ñi nga xam ñoo fi nekkoon ak aussi ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di wéyal héritage boobule euh, te képp koo xam ne aussi bokk nga si ñoom euh, di yëkkati yenn kàddu yoo xam ne du noonu ñoom ànduñu si bokkoo si ñoom loolu la Sonko wax sax képp ko yëkkati yenn kàddu yi bokkoo si ñun en tout cas mooy li ma la waxoon xam nañ ni ñooñu ku fi nekk pour sa yenn woyof pour sa jiite réew yomb faw nga dem tàllal loxo ñu ñaanal la te ils ont fait pareil muy PM Ousmane Sonko muy le président Diomaye. waaw moom laay doon wax chaque fii chaque jour ma ne réew réew ku koy diriger. Mhm. da xam taarixu réew mi. Mhm. Mhm. doon ci joxe sax ay exemple ki nga xam ne ni tey mooy Xaali Amar Fall ak Damel Maxuréy Ja kii gérer le pouvoir spirituel kii gérer le pouvoir temporel. depuis jamono yooyu noonu gis nga li nga xam ne tey moom mooy pouvoir spirituel ak pouvoir temporel dañu mus di. collaborer même gis nga bi fi colon bi nekkee. sax bi nga xam ne ni tey ñoom yoroon nañ pouvoir temporel bi te ci kaw nootaange. bu ñu bëggoon def yéen yi dañuy ñëw waxtaan si ak sëriñ si. te boobu lañ yor dañuy dem waxtaan ak sëriñ bi ñuy bëgg par exemple tey bi ñu amee problème bëgg ñu dimbali leen. ci wàllum li nga xam ne ni tey moom mooy euh, noot bi leen Allemagne noot pour ñu jëlee fii suñu ay nit yóbbu leen foofu noonu dañuy ñëw waxtaan ak suñu kilifa diine yi fi nekkoon. ñu jàppale leen. pour wan la ne loolu ñàkk xam donc parfois nga doon gis ci internet bi di gis yenn gars yi ay ree da lay jàpp mm, parce que mooy ñàkk a xam taarixu réew mi mooy li may wax tout le temps ma ne gis nga réew mi soo ko soo koy jiite da nga koy xam du xam-xam kese. Mm. mais da ngay xam réew mi tamit. Mm. soo ko xamul rek après yow soo moytul ci ay erreur ngay nekk. Hmm. moo tax lii nii lu ama am solo la. lii nii te boo nekkee ci biti doo xam. doo ko xam dara du ko dindi. Hmm. la jub jubal jubbanti bi ak gëm sa bopp bi. sëriñ si si loolu lañu ñu mës a nekk. Hmm. sëriñ si musuñu xaar kenn ci leen na. daara yi ñoo ko doon Ousmane Sonko di ko dëgg. nee na sëñ bee ko njëkk a yëkkati. daa noonu daara yi fi mës a am yëpp. sëriñ si ñoo ko doon sampal seen bopp. te buñ ko sampee danañ def tool ci wet gi. def def def li nga xam ne ni tey moom mooy. Mm-hmm. Euh, euh, li nga xam ni tey moom mooy par exemple tey école ci wet gi. Mm-hmm. daara. Mm-hmm. ñoom ci loolu lañ mës a nekk ku ci nekk penc ba nga sanc. ma ne da nga fa def béréb bu ñuy jàngalee def fa béréb tool def fa bérébu jullikaay. décentralisation bi ñuy wax Sénégal yëpp sëriñ si ñoo ko liggéey bu jaree ñu jàmmarloo ak par exemple tey. Euh, euh, tubaab yi li bëgg a daane réew mi sax gis nga liñ ci daj. Hmm. ñii ñu exilé leen ñii joxe ci seen deret ñii joxe ci seen ay doom ñi ñii xoolal éviter seen ay famille hmm. ngir Sénégal mën a nekk ay jullit. Hmm. ku mel ni El Hadj tàggee tàgge nañ ko yaayam yaayam. mu nekk ci liggéeyal Sénégal tas ay ay ba demul. pour pour njëkkanteeg tubaab yi ci nit ñi ba ñu mën a par exemple tey nekk ay jullit mag ñi lool la ñu daj. ba pare nag sa waay. mag ñi dañu mës léegi nag bi problème bi fan la commencé mooy dañu ñëw ba à à l'indépendance ñi xeex ñëpp république bi ñëw puus leen mhm. jox leen benn ak ak benn yelleef ñu nekk di débrouiller république bi boolewu leen ci defam loolu mooy problème bi kenn institutionnel alors que boo demee en France non boo demee tey yenn dëkk yi mhm. tey par exemple tey dangay gis ne seen lieu de culte yi fa nekk da ngay gis que ne état bi dafay participer mais dem nañ ba Sénégal gëmloo que ne par exemple tey état bu yëkkatee def ci kër diine sa nga gis ñu ay ay dof yu xëy bind non ña ngay nangam sangam alors que. Hmm. li li diine ji di participer ci économie réew mi. kenn xamul nu mu toll. gi nga loolu noonu nag ci communication sax il faut que ñu corriger ko état mënul defal dara kër diine yi tous. li ñu leen maanaam tey ñoo leen di defal léegi nag xam nga mooy lan ñu fexe ba relance euh, rapport yi mm, mu nekk ay rapport yu rapport yi nga xam ne ni tey dafay rafet parce que am na ndaw yoo xam ne da nga leen di seen ci internet bi da nga xam ne ñii di wax ni xamuñu dara mm-hmm. il faut que ñu institutionnaliser par exemple tey euh, relation bi am diggante état mm-hmm. ak kër diine yi tey boo demee fële na le France Notre Dame bi bi bi bi lakk foofu noonu mais kan moo ko defar mm-hmm. l'État parce que dafa xam ne patrimoine la seen id seen seen seen identité la mais tey bu doon fii dangay gis ku nekk jóg ñoo état bi mu ngi defar kër gi c'est c'est pas maanaam ils n'ont rien compris suñu kilifa diine waaw mooy maanaam élection élection jot xam nañu am nañu mbooloo léegi nag taarixu léegi nag taarixu réew mi dafa jot ñu jàngal leen ko xam par exemple tey suñu kër diine yi lu ñuy pesé. ku ci ne ci waxuma laa yow ma foofu de gis nga la diplomatie religieuse li mu indi ki Sénégal. ci li ma xam man la diplomatie religieuse li mu indi ki Sénégal buñ ko bu ñu xamoon nu mu toll dina jéggi dayoo. moo tax na it wax dëgg yàlla yu mel nii am na solo trop ñu fexe ba li nga xam ne ni tam ñi ñiy ñëw nii ak ña nekkoon ak ñëpp ñu fexe ba institutionnaliser li nga xam tey moom mooy relation bi am diggante kër diine yi ak li nga xam tey moom mooy état. lu am solo la mi ngi noonu foofu la ñuy jógee rapidement si euh, à l'occasion du Maoulou gis ngeen euh, Serigne Moustapha si def na benn euh, sortie sortie bi nag ñu bari xaaruñ koon parce que dafa attaqué le leader de Pastef di a Ousmane Sonko lan moo waral attaque boobu jógee Serigne Moustapha Sy dem ci Ousmane Sonko ñu jëli euh, réaction bi dellu si si waxtaan wi. sax ñu yónnee annoncé ni dañuy ñëw waaye mujj gi nga yëg ni ñëwuñu di nga xamit li tax ñëwuñu lan waaw dafa am ñoo xam ne fii ci Sénégal. boo jógee ni ci mustarshidin yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaroo ko mustarshidin soxlawul kat na yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ni da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu mooy Sonko ci boppam waaw man maa ko war a chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlee prison mu nekk dans le comment ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Wade Khalifa Babacar Wade ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci liquider leen la ñu jëm te ëpp naa bàyyi noonu mu taxaw moom professeur bu na sax du dem ci këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen kon nag bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignorer maa ngi koy xaar ci législative yi kenn rek moo ma jaaxal mooy Diomaye Diomaye ku baax la te yëg naa ni it lu baax rek la yéene réew mi mais ku xool li xew di nga am loo comprendre waaw mais yàlla mu ngi fi du fi jóge waaw na continuer rekk am yéeneem bu rafet fa yàllay jaar ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma maa lànk recevoir ma kenn waaw ba démb ba démb ba démb nekk loo xam ne gars yi xaaruñ ko woon vraiment si Serigne Moustapha si mooy euh, sortie bi nga xam ni def na ko contre Ousmane Sonko euh, nee na daal Sonko daf ko ignoré ba mu jëlee réew mi alors ko bu toogee ba tal lii lépp euh, yàlla ak moom a tax parce que trois tentatives d'assassinat bi ñu ko yóbbee pavillon spécial moom moo tax mu mucc si ñëpp gis nañ kàddu yi nga xam ne sëñ Moustapha Sy yëkkati na ko capitaine aussi doom yëkkati na ko contre Sonko. waaw mais man bettu ma. Hmm. parce que xam naa Serigne Moustapha Sy ak franc parler du sol kagul loolu moom képp kuy nit war nga war nga ko xamal loolu quoi. Hmm. du sol kagul ci dara. Hmm. lu muy wax aussi tamit si pénc la koy waxee. wax dëgg yàlla seen allié la nag. am na am na légitimité. ngir wax ci pouvoir bi. politiquement parlant. laay wax am na aussi tamit li nga xam ne ni tamit kilifa diine la. mais aussi kilifa politique la. Mm-hmm. ñaari casquette la sol. kilifa diine la mais kilifa politique la assumé ko. Mm-hmm. yeneen bi aussi tamit kilifa diine la woon kilifa politique la woon. Mm-hmm. te it du ñu gan ci politique ñoom ñi. parce que ku ñu parti ñu gagné woon Senghor en 59. Badji Abdou Diouf. ak Abdoulaye Wade am nañu am nañu jaar-jaaru politique xam euh, mouvement bu am jaar-jaaru politique lañ. li des moom mooy bi Sonko ñëwee gis nañ soutien de taille. mu Moustarchidine yi nekkoon ci nekkoon ci komba bi soutenir ko parfois bu xalif yi waxoon sax moom ah, Serigne Moustapha Sy moo doon génn euh, bloqué ñoom ñu tàccu mhm. donc nag ah, bu toogee ba gis que ne peut-être doxin bi lii la ci seen biir ci seen biir coalition te ci xeex bi gisu si boppam am na droit wu génn publiquement mu wax ko je crois que loolu légitime loolu buñ ko xoolee ci côté diine mais nañ ko xoolee sur le plan politique mm-hmm. wax dëgg yàlla am na bu bu doon fekkoon sëriñ boo xam ne bokkul ci politique la d'accord mais koo xam ne am na parti parti bi bokk wi Askan Wi moom ak Pastef ak taxawu Sénégal ak mm-hmm. ak ñoom ñoo ñoom ñoo formé Pastef mm-hmm. pire taxawu Sénégal. nee na li mu liggéey si yéen kenn liggéeyu ko ñoom ñoo tax ñoom ñoo taxawu Pastef non ñu am ñu am kii lañ ñu am parcours politique lañ. Mm. loolu moom man maa la ko wax. Mm. beneen bi si des moom mooy Ousmane Sonko nee na newoon na ñaata yoon dañ gars yi defoon ci defoon nañ ci moom ay tentative de. d'assassinat d'assassinat loolu Ousmane Sonko moo ko wax waxaloon boppam. ba sax am na lu nga xam ne nii tey nee na. dafa waaw amoon na benn analise bu ñu jëloon ba yóbbuwoon ko bitim réew. Mm-hmm. pour doon xool. ba xam poson la ainsi de suite mhm. kon tentative d'assassinat di si sëñ sëriñ bi di wax je crois que ci Ousmane lañ njëkk a jógee mhm. léegi nag ñoom ñoo àndoon seen ànd ànd bi je crois que lii alerte la dem nañ ba ci biir ñoom politique ñëpp xam nañ ne ñaar ñu ànd di dem ku ci nekk après di nga bëgg ay loo am mhm. gis nañ ne zappé nañ leen taxaw nañu wax en tout cas allié de taille lañ. di ko xaar ci législative. waaw léegi non politique la lii par exemple waxul deful déclaration sëriñ bi mais déclaration bu politique la def. léegi li ci des nag ah li ci kanam raw li bët ba xam dañuy waxtaan ci seen biir. dañuy waxtaan ci seen biir parce que politique lépp waxtaan la alors que booy yeneen gaa yi moom booy Sonko yi man dama gis. commencé nañ ko attaqué comprendre ñu nga politique. Hmm. comprendre ñu ñoom. booy parfois gis nga mooy leen kiy wax du baax bu Pastef yenn yi nañu bàyyi leader yi réglé ko parce que mën na nekk après ay waxtaan ci seen biir yoo xam ne nii après. waxtaan ba jiboo waaw. parce que dañoo jëm ci ay élections yi nga xam ne nii tey. dëgg la yàllaa yi joxe. mais élection addition la. te élection yi ñu jëm nii aw raw gàddoo. li si addition daal moo gën. waaw moo gën. <laughs> waaw kay. mu ngi noonu. Euh, dis kenn xaaru woon Moustapha Sy génnee fii fii la génne. pro Macky ni mu doon attaqué <laughs> ah, Macky. pro Macky war nañu ñu foogoon du attaqué ah. Sonko du attaqué Diomaye parce que seen allié la. mais gis nga attaqué na Sonko mais nee na Diomaye ku baax la. non attaqué wul quoi dafa wax li nga xam ne moom la moom la moom la denc génnee ko. Ah, mooy attaque bi. instant bi boo xoolee boo xool souris boo lèvres lañ <laughs> leen. souris pro Macky non pro Macky nee parce que ñoom si. ñoom pro Macky mais boo xoolee boo xool euh, Thielé. Mm. waa PUR ngay gis doo gis affiche. doo gis euh, mouvement d' ensemble déedéet da ngay jékki-jékki rek gis leen ñoom ñëpp ñu daje benn instant te doo xam nan lañ joxantee message bi ba toog ils sont tellement silencieux. Ah, organisé ba pare te benn baat la. te benn baat rek la déglu ñoom ñëpp. te am ko allié moom moo gën foofu maanaam am ko xarit a gën am ko noonu sëñ Moussa Fall. non gars yi nee nañ booy patriote yi nee leen yéen 2 pour cent élection yi mujj amoo leen sax 2 pour cent. boo déggee ñu wax loolu la ñuy li ñu wax nii preuve palpable tangible ba yëngu pur rek ngay gis ñu sol yu vert yu génn mm-hmm. seen caravane ngay dégg ne song nañ ko ni ñuy songee waa Pastef noonu lañ leen doon songee ni ñuy bunu xatalee waa Pastef noonu lañ doon bunu waaye terewul ñoom da ngay gis dañuy génnaat nekkaat ci front bi te ñoom duñu tooñ du sànni xeer. du def da doo leen gis yooyu yëpp ñoom benn carte la ñuy yor seen i flageur di déposé ak seen message na ko. ñu ay taalibe topp fi mu toll nii nii nii. Hmm. vidéo bi na yegg na viral ba dem ci Ousmane Sonko. bataille politique il fait partie des hommes les plus renseignés au Sénégal kon lii war na koo xam moom na dem mutu ndaxte bu dee denn cërub kilifaam daf ko ko war a delloo. Hmm. ñaar. lim ko jàppale te lim ko génne ci ay jafe-jafe yëpp ab jaajëf dafa war ba mu tàngee nga delloo ko njukkal sa kilifa bi nga xam ne moo la génne ci tooxi doona wala moo la jàppale ba nga nekk ci tooxi doona ndax mm-hmm. fa amaa bi nihmati rabbika fa hadis cale la ñu wax nit bu la defalee lu baax jërëjëf da ciy li war te instant bi fi politique toll biir Sénégal sëñ Moustapha da cee am bànqaas gu rëy rëy mm-hmm. ak njaboot gi mu jiite lu rëy rëy te ñoom dañuy soxla maanaam kilifteefu ñooñu noonu nit ñi jéggalu ne ko ah sëñ bi kat maa wan ko taalibe yi nga xam ne moom lañ ko xamee. wan ko taale bi nga xam ne jomaay moom la wane ci référence ci yëpp mu toppi tànki jomaay ci yar ak teggin bi mm. ak ci dévouement bi ak ci dévotion beeg yëpp dem ba ci moom mu waxtaan ak moom entre kilifa ak kilifa ñu trouver entente si parce que nee na ko maa ngi lay xaar ci élection législative gis nga ñu booy xam nga booy passé fii nag dañu amul expérience politique non non wax ko ci mag ñi booy yi ci internet bi mm-hmm. amuñu expérience politique ah, dañuy yàq sax parfois mm-hmm. man pour man lii ma gis nii xam nga lan la woon. waxtaan ci suuf rek moo ko moo ko doon doom la ñu <laughs> ñu jógee foofu rapidement seeti keneen koo xam ne aussi toj na gàmmu gi xam ngeen Serigne Moustapha Sy moom chaque année dafay toj gàmmu gi mais Ahmed Khalifa Niass aussi toj na gàmmu gi moom aussi dem na ba ne moom daal xam nga est-ce que man damay bàyyi mu wax wala ma yegg rek <laughs> nee na dafa jël aji Sarr may ko Ousmane ko soxna wallaay nee na moom désormais may na Adji Sarr Ousmane Sonko. moom indi moom Adji anamu sax. Amira defe na sa ko wax de man waxuma ko de ñu jëli ko dellu si waat. woteel leen jomaay bëgguñu a woteel jomaay Ousmane Sonko lañ bëggoon a woteel. ñu gàllankoor ko mu neen kon nag sonkoy jomaay jomaay mooy sonko waaye ak ku mën a taxaw ñu woteel jomaay jomaay warte déglu sonko boppam rek la war a déglu ak yoon kon man en tant que koo xam ne dama yor parti politique muy front des alliés patriotiques ñu bokk ak waa Pastef ñu bokk ak ñun patriotique bi te ñoo leen ci mag ñun ñu ci jiitu fii Sénégal am na yeneen parti patriotique waaye benn jiituwu ci fab suñ bos kon dañuy wax ni pour réew mi mën a amaat jàmm nañ defaat wate bu bees bu watelee Sonko Sonko nekk président di defal boppam au lieu mu sant keneen mu di ko defal bu ñu wateelee keneen ñu xam ne kooku ñu wateel moom du déglu kenn ci li muy def mu jëm ci réew mi mu yoon ak loo xam ne du wóoroo ak intérêt bi ci des itam am na coow lu ñu fi indi woon tudd ci ndaw suñu Adji Sarr ay waajuram nekk taalibi ci kër gi man en tant que koo xam ne kilifa ak ndaw soosu laa dama jël suma responsabilité may ko sonko takkal naa ko ko may naa ko ko waa du ngeen yëgal seen loxo yi sax waaw ah waaw jox yokk leen yëngal leen moom waaw ndax benn ankay ndax benn daf koy lew daf koy lew bu buggee mu bësal ko mën na koo bësal fekk yaramam dagan ko ba mën koo bësal <laughs> plus gars yi dañuy wax ne waa gars yi Sonko lañ doon gàmmul wala guddi le prophète. ah waaw. xam nga moom laa wax ne le buzz bi moom la. waaw am na Khalifa Niass daal dégg na fa mu génne ba mu ba mu gàddoo bës ba léegi jox ko kenn. waaw fu mu mën a dem rek. non waaw mooy loolu quoi waaye Moreau. moom aussi kilifa diine la homme politique. xam nga yàlla bu la dénkee mbooloo. Hmm. sa kàddu dafa la tënku ci li nga xam ne de moom mooy jëmale mbooloo moom ca. la neex saa benn instant quoi. maa ngi jégalu nag quoi xam nga moom kilifa la. te jabootam dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo def ci ñun lu bëree bëree bëri hmm. waaye dem ba ci géewu Seydina Muhammad sallallahu lañ woote ne bisub gàmmu lañ wax waxtaan rek wax dëgg ca la hmm. te dëgg dafa neexut a wax ñenn ñi te dëgg dafa neexut a wax itam koo xam ne dafa jiital ngëm-ngëmam ci kilifaam wala yu ni mel hmm. waaye olof da koy wax ci suñu way yu ñuy wax way bu déglewul yeetewul ay naxee mbaay la loolu rek laay junj waaye nag moom comme nee na moom li la waxee ba tudd ci ay yoo xam ne weesu naag yu ni mel. waaw may gi mu ko may Adji Sarr nag a wax. waaw dégg nga li ma la wax sëy boobu naka lay dagane boo ko demee. da koy daganal moom ko jël may ko may da koy daganal. la nga yor na lu a wax rek dañ naan ko lii rek dellu ko. Cale Ahmed Khalifa Niass aussi toj na gàmm gi wax na lu bëree bëri de dañ si dagg rek Thiel waxaguma non man non xam nga. xam nga lan moo ma metti. waaw législative yi nar naa xam nga lan moo ma metti. ñaata tant. ñoo nekk Sénégal waxuma fenn Sénégal. mais yéen si fas. maanaam ñaata tant. ñoo nekk Sénégal. gàmm. mais yéen si maanaam tey boo demee ci biir benn ville centre rek. da ngay fekk plus de deux ay ay deux mille tant. ñu ngi foofu. nga dem Kaolack taal bi kenn xamul nu mu nga ñëw Tiwaawan ñu ubbi jumaa ju mu nekk bis bu rëy mu nekk bis bu rëy. nekk bisu maam Abdou Aziz. waaw bis dajeeg 14 septembre. waaye chaque année sëñ Moussa Fassi mooy. mais après après on te indil. on te indil comme ni ko waxee. <laughs> on te mais nag. sëñ Moussa Fassi non Ahmed Ahmed am na benn côté boo xam ne nii peut-être wax na ko. moom en tant que parti politique aussi moom it ku yàgg ci politique la homme politique la xam nga boo xam ne am na expérience politique jaar na fu bari. man maa ngi doog a xam tey turu parti am. non jaar na politicien bu moom la Ahmed Ahmed ko waxee ni ba nañ ko Ahmed Ahmed est un diplomate. tëdd nañ kaso Senghor du Ahmed gis nga bokk bokk ki njëkk a ñi njëkk a taal ñi njëkk a taal. ñoo taal drapeau ñi njëkk a taal drapeau France fii Sénégal dugg kaso. Ahmed Khalifa Niass la ak Sidi Lamine Niass. mais xam nga jeunesse bi loolu ñàkk a. gëmmal dóor kii ma ne waa passé si ñoom lañ ko sax. yooyu yooyu kii ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne xeex nañu ko mhm. xeex nañu xeex ay xeex yi dafa yàgg du commencé wul tey. xeex yi commencé wul deux mhm. wul deux mille nangam. xeex bi mhm. xeex bu yàgg la boo xam ne ku nekk am nga. peut-être loo ci joué. waaw non ban quatre-vingt xeex yi ba mu. commencé léegi nag waaw léegi Ahmed dafa nee na yéen a may laaj de. ak li mu am côté boo xam ne. Ah. gaa yi nga koy suscité. ce que Diomaye mooy mooy gouverner. wala Sonko mooy gouverner. wax na loolu gaa yi wax na ci quoi. léegi nag bu fekkee léegi loolu ci doxalin bi hmm. lañ koy xoolee. ci doxalinu par exemple tey ñoom ñaar wala bokk affaire bi nekkatul benn chaise wala fauteuil présidentiel la. loolu aussi tamit ñëpp. wala Sénégal ñoom ñoo voté Jomaay mooy Sonko Sonko mooy Jomaay. kon kon ñaar ñoom ñaar lu ci def nangam wala dañu war a changé waat loi wu bi ba mu gën a méngóog Sonko. Jomaay Jomaay Jomaay wala ñu organiser waat ay élections yooyu yëpp après lecture la yi nga xam tey nit ñi ñooy nit ñi ñooy liir ba xam loolu am na xam nga beneen bi si des moom mooy. xam naa rek non beneen bi ci des moom mooy xam naa ab sànni xeer la rek sànni xeer politique. waaw <laughs> sànni ab sànni xeer politique la mm-hmm. mais xam na ne loolu moom sànni ab sànni xeer politique laa ko mën a ah, tuddee. ah ko commenté. <laughs> Ah, xeer politique. waaw waaw euh, guro ak yow bu ñuy maye ay nit kay. Euh, par exemple ñoom ñaar am condition. condition bi mooy ñoom ñaar ñu taxaw waaye jékki-jékki rek xëy na man maye naa diw. waaw waaw oustaz Ahmed Mm-hmm. yow mi nga xam ne yow moom xam nañ ne moom mufti nga mm. mufti al mufti alayhi la mm. borom xam-xam la mm-hmm. xanaa loolu moom ab ci ban aaya lan koy teg dana koy indil de ah dana koy indil est-ce que sëy bi daganam daganul waaw boo xam ne nii dañuy jékki-jékki rek dóor ko fële kon bi yónnee nañ ko ah? ma ne nag bu ma ne nag sëy Seydina Aline ak ak ak ak ak Fatima yàllaa naa ko dafa bëri ay kii te mu ne boobu fële fële la jóge déedéet loolu ci xare la non sëy sëyu Seydina hmm. ak Fatima doomu doomu doomu doomu yeneen bi sëy bu ñu takkee ca sëy boo xam ne nii la ndigal li ci kaw la jóge fekk boobu non li may wax nii mais moom nee dafa jël responsabilité léegi moom naka la mën a jëlee waa léegi naka la a jëlee responsabilité ci loo xam ne nii tey tey ñaari parti yëpp kenn kenn taxawul ah. loolu tamit amet dañuy indil dalil yi dalil yi est-ce que nangu nañu la ñuy njëkk a laaj ah. coow li daal bëri na foofu la ñuy tàggatoo temps bi xoj nañu par euh, jaman la ñuy terminer un peu de show di leen remercier ba demee incha allah ci beneen ba show merci beaucoup defar ba ñu taaru ñas kumba abdala kookoy borom rey ju neex ji moo jara wóolu yaay li nëbbu yaay li feeñ billaay neexu loo xam moo jara bare bi tugal yaa fa dem borom dokk baa ngi baay ñas moo jara wóolu moo ñu gaaya ca maam maaram fa nga bokkeek maam Malick kenn du yow ko koy borom parasol ba njool femme bàyyi sëñ Babacar Sima mi lépp rusul ko